salaamaaleykum mbokk internet yi ñuy bàyyi xel seen site bu am solo bi di seneinfo point net suñu chaîne youtube seneinfo international suñu différentes plateformes yi ñu ngi leen di nuyu ngi leen jaajëfal seen euh, teewlu euh, tey nag euh, ñu fas yéene waxtaan ñi nga xam ne ñoom ñooy waa groupe Ndobine benn ñu toogal moom mooy Laytra di lead vocal bi fas waxtaan ak ñoom ci musique bi nga xam ne ñu ngi koy def wante itam musique d'une manière générale balaa may sori rek kon dama koy bàyyi mu neente ak mbokku internet yi. laay ñu ngi lay fay di kontaan trop ci invitation bi di nuyu spectateur Sene Info yëpp euh, di leen jaajëfal bu baax di wax asalaamaaleykum laay tra la gën a ndóbin benn. laay euh, ndóbin benn ba ñu ma présenté li nga xam na kon moom mooy euh, groupe boobu. waaw ndóbin benn c'est un groupe de jeunes ay ndaw lañ yu bëgg musique yàlla boole leen ñu bokk lu ñu bëgg bokk ci gis-gis tolloo ci également ay objectifs ñu décider booloo pour mën a créer de la production musicale buy mën a apporter lu bees ci maanaam paysage musical Sénégal donc loolu moo ñu tax a jóg nous sommes tous des jeunes man maay lead vocal bi on travaille avec un soliste muy Bachiba on a également un percussionniste muy. Francis am nañu un bassiste Messa père également qui tient la percussion Messa Niang moom ñu ñu invité ci donc euh, voilà groupe daal de personnes la ñu réunir pour mën exactement dund seen passion mais en en vivant leur passion ñu apporter message de paix un message de, solidarité un message parce que jàpp nañ ni communication la et booy communiquer tey ngay wax wala li ngay way day atteindre ay public public boobu muy atteindre war na am ñu indi moo waral sax turu ndoobin picc la picc boobu ñu ngi koy woowee ci tubaab corbeau corbeau bu ñu xoolee bu njëkk dañ ko doon utiliser pour yónnante ay message ndoobin message la indi moo tax ñu tuddee suñu bopp di ñaan yàlla message boobu atteindre nit ñi te nekk lu positif ci ci population ban genre musique ngeen di def. variété la ñuy def amuñu limite daal ci musique parce que dañoo jàpp ni tey bon fi ñu toll nii genre musical yëpp tey dañuy recouper ci ci ci ci tey expression tey buñ mën nañu jouer nga sentir ci reggae ñu jouer nga sentir ci euh, acoustique wala nga sentir ci souk sax donc ci sentir donc il y diversité boo nga ko message quoi message bi dafa am solo ban genre message seen message bi ngeen jàllale ban waaw message yu ñuy jàllale message yu déjà message yu espoir dirigé à notre jeunesse parce que jeunesse ñooy avenir tey jii réew bu changé jeunesse bi donc tey suñu message principalement ci ñoom la jublu ci déjà ñu bañ a perdre espoir. c'est un message d'espoir qu'on lance à la jeunesse à travers benn titre déjà bu tudd Waliyaan et parle de l'immigration clandestine hmm. waaw di dina di ci naqarlu ñu ci profité di jaale ñi nga xamante ni seeni i doom réer nañ ci géej mais ci naqarlu également le fait que ñooñu perte nañu espoir ba gëmatuñ ne mën nañ fi génn ci réew mi alors que lépp am na fi donc euh, ñu leen di lancer un message ñu xam ni lépp mën na nekk bu ñu ñëwee si répertoire Ndoumbe Bane te ana peut être yéen ñaar ci ngeen defagum ndax tey def ngeen album demee bon actuellement ñu ngi ci projet wu beaucoup de titres euh, qui thématiques principales yi du ma koy wax c'est euh, des thèmes sociaux social c'est également des thèmes qui parlent de l'amour sur un peu donc on a on a beaucoup de titres qui sont actuellement en train d'être kon te eh, prochainement incha allah dégante ana nan ngeen gisee eh, musique Sénégal. waaw Sénégal gis nañ ni vraiment mi ngi mi ngi mi ngi li ma seetlu depuis depuis quelque temps mooy ñu ngi commencé di affaiblir au niveau euh, génération de musiciens. maa ngi maa gëm naa ni lu ñu gën di dem tey Sénégal di mën a apporter lu bees au international parce que tey jii musique de culture la te yàlla may nañu richesse culturelle ba nga xamante ni war nañoo mën a samp suñu ne ci àdduna représenter suñu suñu sénégalais au euh, yi di déglu au Sénégal mais d'autres formes musicales yi nga xamante ni tey dina mën a atteindre un public qui au delà du wax nga ko sànq ci di ngeen di ngeen jàllale message comme en tant que ay jeunes ngeen. bu ma ñëwaatee boo mënee peut être ñëw ci fóotal quoi. Mhm. surtout aspect aspect jeune boobu en tant que mhm. nga euh, nekk euh, par rapport ak jeunesse bi. waaw <coughs> comme ni ma ko waxee woon sànq ndaw ndaw moo yore moo yore réew waaw ndax aucune aucune aucun avancement. significatif ne s'est fait nulle part dans le monde sans l'intervention des jeunes mag mag mat na bàyyi ci mbir waaye Youssou Ndour wax na ci benn woyam mu ne mu ne ndaw bu waxtaanee ak ay way juróom sottante ak ñoom ay xalaat fu mu mënti dem ci àdduna tey war faa mën a séntu lu baax maanaam tey jeunesse su Sénégal ñun dañoo war a xam ni maanaam yàlla jox nañu lépp maa ngi koy wax ci benn titre euh, Sénégal ma yàlla yàlla wàccoon ak ñun ñun ñoo ci des dañu booloo ñu doon benn ñu liggéey liggéey mooy mooy mooy suñu waaw liggéey euh, war am naa waa def ne woon il faut travailler toujours travailler encore travailler loolu dëgg la waaye il faut d'abord ñu xam kan la ñuy liggéeyal ak ñuy liggéey noonu fan la jëm waaw donc moo tax ci loolu importance liggéey pour mën a développer tey jii bëri na jeune jàmbaare man bu ma gisee ñu naan jeunesse sénégalaise kii wuñu maanaam euh, duñu duñu liggéey man doon bu ma rombee ci mbedd mi gis marchand ambulant yi ñu ay kilomètres danga gis ku yore ay euh, nu mu tudd euh, kii ay casque lay yor écouteur rek yooyu noonu bagage yu ndaw bu leer ni kii boo calculer li mu yor yëpp motul dix mille francs waaye ci loolu lay jàpp di ci dox ay kilomètres ngir mën ci am noonu ngay gisee booy voyagé di génn di génn dëkk bi suñu yaay yi ñu dàqante guus yi di la jaay ay fruits di la jaay ko da xam ni non Sénégal ay jàmbaar lañu ndax dëkk bi metti na trop prix yi cher nañu waaye ñu ngi ciy génn kon jeunesse bi bëgg na waaye amaana dafa gisul moo tax may fàttali suñu njiit xoolaat wan ginnaaw ñu gestu ndaw ñi ñu gestu leen orienté bëgg gi ñu bëgg ngir mën a liggéey ñu orienté leen mu mën leen a ci yoon ba ci réew mi euh, voilà euh, euh, ko loolu lan mooy ay projet yu Ndogune benn projet wu Ndogune benn actuellement principal programme bi projet bi en parallèle on joue ngi ci suñuy répétition ñu ngi on est en train de cuisiner de composer des chansons au-delà de cet album on est en train de jouer également des lives dans certains milieux à, à on a des projets de festivals qui sont des participations à des festivals très connus véritablement loolu mooy suñu suñu suñu suñu projet après le plaidoyer on compte accompagner qu'on a commencé dès maintenant ñu ñu war a accompagner par rapport ak immigration clandestine parce que loolu dañoo jàpp ni euh, lu lu sujet bu am solo la daal mm-hmm. te dañoo gëm ni tey musique l'art pour l'art c'est c'est c'est beau mais man art bu engagé laa gëm mooy maanaam art ba nga xamante ni tey day amal njëriñ ci béykat ñu koy déglu donc ci loolu loolu la ñu nekk ci préparer véritablement des de la sensibilisation des des des mouvements de sensibilisation des ateliers de de de de, de workshops comme on dit des workshops on va partager avec les jeunes d'abord de notre localité. Mmh, pour muy à Mariste discuter et on va délocaliser ça par rapport avec, euh, les problèmes de notre société. tey jii on a on depuis l'année dernière, on a commencé à faire ce qu'on appelle les campings artistiques. Mm. Euh, le peu de matériel qu'on a, chaque samedi, nous avons les artistes qui nous avons open mic, on branche. Pour ce bon, exprimer ça, pour pour le faire, pour, pour égayer également. Donc, projet le actuellement, dafa nekk en stand-by voilà mais on compte le continuer ba pare bëgg nañ ko décentraliser un peu partout pour que ñu gën a mën a atteindre euh, suñu si. di ngeen def musique bi gis seen bopp aussi parce euh, gis ngeen ne nit ñi ñu koy approprier quoi est que gis ngeen ne nit ñi waaw donc euh, waaw alhamdulilah ñu ngi ciy sant yàlla retour yi ñuy am déjà ci ci appréciation déjà message yi ñuy lancé style musical bi ñuy def loolu dal na suñu xel daal ñu yokk courage ci li def ci kanam voilà la l'art pour le moment ne fait pas encore son mais comme ni ma la ko waxee passion passion bi moo tax nangu sacrifier aussi lu bëri parce que mu dafa laaj temps la la dafa laaj sacrifice te li mu laaj noonu may na ma ma ànd ak ki nga xamante ni tey ñoo ci tolloo loolu nga toll tey di mën a gis sa business ñu koy def ci seen temps ci seen alal ci seen xalaat ci seen énergie. man maa gën a nekk ak te loo fajar du la jaar donte fesu yara waaja jël gaal balaa jëm sube fenk bon jël na gaalu denk mel ni gént waxtu bëri moromam ci yoonu barsa wala barsa jeexalee waxtaan bi rek laa lay laaj. waaw vraiment di la remercier di remercier toute l' équipe de Sénéinfo di remercier suñu suñu caméraman voilà di remercier Père Sagna membre la actif de également fii la di ko remercier ci yaatu bi ñu yaatu bi ñu vraiment may ñu am fu ñu exprimer suñu passion euh, di wax gars yi euh, ñu ngi ñëw euh, loolu ñu ngi lay jaajëfal bu baax laay ñu ngi jaajëfal itam kon mbokk internet yi nga xam ne rek eh, ñoo ngi doon eh, bàyyi xel yaakaar naa waxtaan am na solo eh, ñi nga xam ne it jot ñoon xam déwén ren dinañ leen découvrir incha allah à travers à travers vidéo bi di jaajëfal kon bu baax a baax rek ñu ngi doon bàyyi xel di leen dara kon ak beneen invité.